jokka war adduna istalam bar la war bëgg laa nax ba war la rekk di nar ku naa dalli yàgg yàgg dalli war ko war murus ba dee di sa tiitër ku naa dalli yàgg yàgg dalli war ko war murus ba dee di sa tiitër war na ñoo xam ne ñoo la kàttan app lay te seeni biir ëpp say biir war na ay wàlli yoo ki boo wari kàngam wari baat wolof war giit wari yeefar war na feraw na ak ñi tem ñi labal leen baaru xal suum sànk leen ba ñu réer mër war na xaaru woona ak këram nga ci biir suuf te da daa wax ci serula amee gi jur war na namruut ma sànni sunu maam yi de ci biir naari yoo ko leen di ci kéewër te borom ngeeloon ba ma sonaa wute xeex ak borom alaski di xayir war gi daa taanira masaadil imaada mbagg muy ajjanaam ci àddina mi far àddina génne abraam ñu ko toppoon lu ko dal makka ñey la abraha daawal doji si ginna leen janaawi abaabil sànni boobee ba ñëpp jéende dañoo xeru mooy ki bëggoon a màbb kaaba ga ngeen yàlla def mu ñëw jamono ci 1921 sëñ Fallou tudd ko ab xaritam garakam tax na Sëriñ Bara séddoon ko loo xam ne waxtaanu biiram dëgg-dëgg ak mbirum bopp mépp moom la ko dénkoon mu mën ci moom it lu ne. nekk na fi ba jóge fi kenn xamul léppam da koo lëm dafa mel ni la daraje bi nekkoon ci turandoom Cheikh Amadou Lamine Baara moom la moom la ko ci la ko tibbal moom itam Alaaji Baara dafa dafa bari fu mu fu mu tibbee ndax Cheikh Amadou Lamine Baara moom mu ñu ko tuddee moom ci boppam nekk na ma ci moom yu baree bare bari yu dox seen diggante ci ay ci ay xar baax. البكاء على سادات أمواتي تبكي الأراتي عليهم كالسماوات jamono mu doon bu doon xalifa Cheikh ay jamono mu doon xalifa Cheikh Mouhamadul Fadal wutu ko wutu ko fi te doxin wa te doxin wa ak ca taalibe ga ak ca taalibe ga ak ca woyof ga ak ca woyof ga nekk nekk rek borom lëbal na ko cër boo xam ne bi nekk suñu borom lëbal na ko ca euh, cër boo xam ne kenn mu kenn mu ko yaakaar kenn yaakaaru ko woon mu xalif sëriñ Touba muy doon xalifa sëriñ Touba ma doonee ba léegi ma doonee ba léegi ma doonee itam dafa dafa dafa jël taalibe bi gam gam gam nga saxal ci nga saxal ci moom dafa fekkoon taali bi ga nga xam ne moo saxoon ci moom mu dund ko mu dund ko diggante waajuram bu baax ak sama diggante ak waajuram bu baax ak Cheikh Mamadou Fadal ba mu nekk xalifa ba mu nekk xalifa Serigne Fallilou ba mu nekk xalifa Serigne Touba ba mu nekk xalifa Serigne Touba na woyofoon boobu na woyofee woon boobee noonu rek la woyof boo dem jikko ju baax joo xam ne ñu ngi ci melal nit ku baax rek ci saalihiin yi boo ko làmbee da nga ko fekk ci Cheikh Mamadou Lamine Bara ba ci jiitu mooy woyof ndax jëm loon joo xam ne ak woyofam amut bàpp te suñ borom dafa wax ne man tawaadaa rafaahullah ku ku woyofal sa suñ borom dana la yëkkati yëkkati ki ko yàlla yëkkati tam woyof ba ca la doonoon itam ku tabe ca dara jàmm ndax loolu ci biir woyof kër lay duggaat ba tey muy loo xam daanaka jëru firnde adduna si xam nañ ko. kawar war bëgg ba la rek lim nar. yàgg dali war njàgg ko war murus ba dee di sa tiitër ku ma àndal yàgg war njàgg war murus ba dee di sa tiitër war nañoo xam ne ñoo la ëppale kàttan ëppale yëf te seeni biir ëpp say biir war na ay wàlli yoo ki boo wari kàngam wari baat wolof war giit wari yeefar war na feraw na lii ko yàlla jox tey bu ko tuddee ci yow mën naa ne ci yow kon nee na yëf yi kenn moomu ko nun ñëpp ñoo ko bokk nee na mi leen di gërëm bu baax leen sant nee amul lenn lu war a wax nag loolu sant leen ak gërëm leen di leen xamal ne nag kenn kenn newu fi ku dul dongo yi nan fonk donga yi te téye leen te sàmm leen lu nu man te xam ne bu dul woon ñoom dara du feeñ ëpple kàttan ëpple yëf te seeni biir ëpp say biir war na ay wàlli yoo ki bóor wari kàngam wari baat wolof war giit wari yéefar war na feraw na ak tem ñi laba leen baaru xal suum sànk leen ba réer mër wan xaaruuna ak këram nga ci biir suuf te daa wax ci serul bi mu ba toog Sëriñ Tuubaa itam yàlla def wàcce boppam ba tolloog taalibe yi doo ko gis mukk mukk mukk mukk ba teg ko sëriñ ndax woyof góob te taalibe yi rek lay wax lu mu wax ne taalibe rek a fi ne lu fi ne yéen a def ba taalibe yi am cofeel gu ñu am ci moom goo xam ne jàpp naa ne nii ñu jékki-jékki doomu Sëñ Tuubaa jeex ni mu ñëwee moom fonk taalibe yi moo tax nu mën a muñ doomu Sëñ Tuubaa waaye bu toon loolu dana diis ci noonu lool. Mhm. waaye nag taalibe yi mën nañ ko muñ ngir wàcc gi mu wàcc ba tolloog ñoom def leen i morom te reconnaître leen ak nangul leen seen pas-pas ci sëriñ bi. Mhm. tolloog ñoom nangoo tolloog ñoom loolu dimbale na taalibe yi bañ mën a muñ. nañ gisatu doomi Sëriñ Tuubaa ba tax na fi mu ñëwee baax na lool. soo ko dee xool mooy Sëriñ Fàllu rek wàcc na lool woyof na lool bëgg na nit lool jëkk ma naan bokk bëgg na nit lool. sëñ Baara jàpp naa ci moom yaar muy jikko jikko yàlla jikkole muy woyof te jikko jooju moo gën jikko yi eh, ak te pëstéefu sëriñ Tuubaa bi nga xam ne am na ko tàmbale ko sëñ Fallu waaw Cheikh Mouhamadou Fadil ku ne xam na ne mooy lépp sëñ baara te sëñ Tuubaa rek a tax waaw gis na it loolu loolu loolu xamees na ko ci moom muy pëste boobu xamees na ko ci moom gannaaw ba loolu wéy itam euh, ni mu doon doxee ci yoon wi nam nam doon nam nam doon ànd ak sëñ Fall bisu ajjuma di ko ànd ak sëñ Abdou Khadir bisu ajjuma loolu itam loolu pëste bu rëy ci taalu bi du du du sol mbaxane ci ci ci ci ci loolu man loolu man maa ngi ko doon siiw ndax bu ma tawfeex ci moom te di ko xoolatuma ci moom sëñ Tuubaa daa daal di jëg jël nag jikko yi nga xam ne moom moo moo moo moo moo moo moo moo jikko yi gën a am solo ci ci nit doonoon koo xam ne itam yitte nit ñi moo gëloo yitte boppam ndax bi ma fuy nekk man nga ne foo dem rek da nga fa fekk ndawul suñu baara war ab leetaram waaye kenn mës sa jot leetar bu jóge ci moom mu ci sàkku yittee boppam wala lu jëm ci ak njabootam lu mu a wax rek ci yittee nit ñi la kon moom dafa jëloon léppam jébbal ko Serigne Touba jël léppam jébbal ko waaye juróom bu tedd ba waaye jël léppam nag liggéeyal ci jaamu yàlla yi looloo waral itam suñ borom defal ko tawféex ni mu ko defal waaye juróom bu tedd ba rek xol yëpp ëbbatu ko ñëpp sopp ko defal na murid yi yaatal la bokk yi ñoddi leen ci boppam ku ne mu jox la cër seetu ci mag ak ndaw ak gone ak mag ak moom ku ne day seet la nga mën mu dénk la ko te muy déplacé wu di dem ci kër yi diine yëpp ñi mu bokkal sëñ Tuubaa it ku ci xewle dafa mën a xew a xeeti xew wu mën a doon dana déplacé wu dem ba ci yow sagal la wax la ne lii fi ñoo ko. bi toogee ba sëñ Fallou. gan gan gan mu njëkk a def ngan gi mu njëkk a def sama la ko def sama kër la ko defee loolu ñëpp xam nañ ne loola ñëpp xam nañ muy lu rëy fi man muy lu rëy fi man bi mu nee Sëriñ Tuubaa nag ba mu nee Sëriñ Tuubaa nag xam ne su ma woon mu ñëw xam naa sax su ma ko woon mu ñëw waaye nag waaye nag su ma su ma toppee woyofaay bi su ma toppee woyofaay bi ak ni mel ak ni mel ba ma bëgg jëriñ ci moom waaye damaa bëggoon jëriñu ci moom moo tax waaye bëgguma lor ci moom waaye bëgguma loroo ci moom <laughs> mbiru yàlla kenn mënu koo xam ah. ndax Alaaji bu fi toogoon ba nëgëni si eh, kenn du ma sa gis lu ni mel lii jëriñ nit ëllëg yow ma xiyam moom la ko yàlla jagleel li nga xam ne ëllëg fii moom fii dara dañ fi jaar dem waaye lay jëriñ nit ëllëg yoo ma xam moom la yàlla fab jagleel ko ëllëg yow ma laa yan foofu maalun wala banoona illa man ata allaha bi xalbin salim xalbun salim kuy dox ci kaw suuf xam nga ne laaj baaraam na ko am na it yuñ ko xamee yooyu mu ne su ko ñàkk a wax muy ñaar yoo xam ne kuñ ko xamee ci yow sa sa sa tax na ba ci jëkk mooy ku fonkoon jullit alaaji baara mësta wóote jullit ajjuma mukk ci jumaay Tuubaa te nekk ci te nekk ci te nekk ci dëkk bi ba ko ñaareel mooy aj makk alaaji baara lim aj makka jàpp naa ni bariwul ñu ko aj makka fii ci réew mi ñaar yooyu nag képp koo xam ne xam nañ ko ci yow muy ñaar jikko yu baax yooyu it fonk ajjuma ak fonk makka kooka mënatoo taq dara ndax yooyu yuy raxas lañ ndax aj makka ku aj màkka aj bu nangu ba aj ngay jël siwaat kenn dootu bindal bàkkaar jullit ajjuma day raxas jullit ajjuma ak morom ja lépp loo fi def suñu kon nag mu wóor na ni satoon na wicc ci ab dundam ak julliteem ak feeñ na ci yoon yi dem màkka ko xam ne dem nga màkka lu naa bu ñu leen bu ñuy wax ci rek fonk lislaam waaw loolu rek doy na ci. Baara moom. Alaaji Baara nag moom. day murit ba noppi murite. day loo nekk da nga koy niru. nekk da koy niru. ku la seen xam ni. ku la seen xam ne. lii lii lii lii nga nekk moom nga. waaye nangam laa ba noppi. waaye nangam laa ba noppi. ku la seen. ku la seen naatable. naatable loola. loolu wóorul loolu day wóorul. Alaaji Baara. Alaaji Mohamed Lamine. murit saadix la. murit saadix la. julit lànqal la. la. jumaa ji day. jumaa ji day. ba mu daan taxaw jumaa ji ajuma. ba mu daan taxaw jumaa ji ajuma. yàgg na lool ci yoonu Cheikh Abdou Khadir bi bi sëñ bi nga xam ne dañu ba jamono soppeeku. bi demee bi ñu demee ba jamono soppeeku. suñ suñ maamun suñ suñ maamun su mii di jiite di di jël jumaa ji. suñ maamun bu su mii di jiite jumaa ji. xelam nekk ci taxaw si sa ah, ah, ba nga dugal ci jumaa julli mu nangul loolu. nee mu nangul loolu lépp ak baaxam rek. lépp ak baaxam rek. waaye buñ ko bàyyi woon te mel. waaye suñ ko bàyyi woon te mel day taxaw foofu day taxaw foofu di xaar ilimaan ji di xaar ilimaan loolu na ay wàlli yoo ki bóor wari kàngam wari baat wolof war giit wari yéefar war na feraw na ak ñi tem ñi labal leen baaru xal suum sànk leen ba mër war na ak këram nga suuf te du daa wax ci seru laa amee ji lu aju ci ak aw doxalinam mag yoonu murit daal xam naa ne ku gëmoon la ne yoonu murit daa war a génn fii mu nekk ndax lay fir la ko waral mooy fam doon jël misaal bi mu ci bëggee ngir defar yoonu murit nañ xool Makka ak Madina. nga gis liggéeyub sëñ Touba bi nga xam ne foo ko liggéeyee la mu fayee la foofee sëñ Alaaji sëñ Touba da ko fayee diggante Makka ak Touba fii ne boo nee Cheikh Mamadou Lamine Baara ñëpp dañuy jàpp ne moom guy mbind mi boo nee sëñ Baara ñu jàpp ne moom guy mbind mi boo nee Alaaji Baara ñëpp dootu xam ne moom kenn dootu ko natt Alaaji makk la Mouhamadou Lamine fii Touba la da ngay boole Touba ak Makka ñu soog koo xam. loolu loolu fi na lu sew la du du du du hasard baatin la fi mu nekk nii sëñ Tuubaa mooy def wax foo ko foo ko liggéeyee la mu fayee la foofee. keroog ba ma fa njëkkee wàcc barab yonent bi jumaa ji ba ma gisee la ma njëkk a ñaan mooy yonent bi rafaateel nu sa jumaa ji yow ndax yow man ngaa am ju gën ji waaw bi ñëwit bi suñ baar toogeet gis nga ni mu daal tàmbalee fabu ci ah liggéeyaat jumaa ji rek ak bayaal bi ni ko àllee boo ko xam màkk xam madina boo fa taxawee boo gisee fii xam ni sëñ baar moom lii la fa boon fii ne làmp lim def foofu ci fegu làmp boobu mu def peron boobu foofu tolloog barabu suñu saaliw bi loolu boo ko xoolee xool ajurtu raswaat xol làmp ba nga xam ne booy wër fa ngay tàmbalee di wër kaaba gi boo ko xoolee mooy foofa man fii ne moo dee wër jumaa ji dëgg foofu lay tàmbalee di ko wër waaw waaw lay tàmbalee di di wër waaw mooma am na lu tax ñu def ko fi njàngaleem alaaj baara daal boo boo boo boo ci jëlee euh, ak taalibe ak pësteef ak bëgg mbokk ak ak ak fonk taalibe yi daanaka leneen loo ciy tuddati bëriwul. jokkawaat àdduna ay sangam bar war bëgg laa nax ba war la rek lim ku ma dal ak dali waar jagu ko war murus ba dee di la tiitër ku ma àndal yàgg yàgg war jëg koo war murus ba dee di sa tiitër war na ñoo xam ne ñoo la ëppale kàttan ëppale yëf te seeni biir ëpp say biir war na ay wàlli yoo ki boo wari kàngam wari baat wolof am na màggal goo am na màggal goo xam ne maa waxoon ni dafa maa waxoon ne dama fa yónnee woon dama faa yónnee woon mu ne Alaaji Baara day mu ne Alaaji Baara day dafa taxawaay ci ñun ñeent taxawee ci ñun ñeenti taxawaay bu njëkk ba bu njëkk ba mooy moo fi nekkal sëriñ Tuubaa sunu maam mooy sëriñ Fallu mooy sëriñ Falilu ndax ndax sëriñ moo fi sëriñ Falilu mooy sunu mag mooy sunu mag it moo ëpp at moo nu ëpp ay at suñu bokk waajur a ñoo bokk waajur di sëriñ Fallu nag damay jàpp ne Sëñ Fallu moom xëy na murid yëpp ko bëgg waaye doomam yi sax ñoo ci raw ñoom niñ mel ci moom amuñ ci sago waaye na nga fa baat lay nag joxaat ko bi cirub cirub cofeelu bu mu amat boppam boo xam ne ñëpp xam nañ nga xam ne amu ci sago loo bëgg ci moom neel Sëñ Fallu boo xasee bëgg Sëñ Fallu wala nga tudd amatul lu nga xool ci yow tax na ma gëm ne na Sëñ Fallu meloon ci sëriñ bi loolu mu naan di génn samay rongoñ ngir sëriñ bi farata la ci sama jëmm fab fab it njureel gi mu am te moom ko mu lew ko doom mu a joxaan joxaan naa ko addiya te la ma ci am joxaan naa ko addiya damaa jàpp ne loolee loolee mu defoon sëriñ bi lañ ko fayee ni alaaji mel ci moom waaye alaaji moom bëgg sëriñ Fallu moom dafa rom di ko liggéeyal di ko wattu di ko aar

wutu sëriñ Falilu doy na maqaam la ko ko may nag ñun ñëpp ñëpp war nañoo góorlu sax ci tànk yooyu te mooy ak taalibe bu ko rafet mooy woyof mooy tabe mooy may ñëpp jàmm mooy ëmbal ñëpp aw yiw loolu daal mooy li nga xam ni xam nañ ko ci moom kon yàlla nu yàlla tas ci barkeem ñoo ngi sant ñëpp ñoo ngi gërëm ñëpp di ñaan nag doom yu baax yi ko fa wuutu kii ci Cheikh Moustapha Mbacké te yow itam wax dëgg yàlla góorgóorlu nañ baax a baax a baax ci li nga xam ne moo def alaaji baara bàyyi ndax nit ki moom ginnaawam rek moo am solo nit ku baax ku ne da war a xante woo mooy wu sax bañ fay jugati te muy lu baax kon nag loolu yàlla defal na ko alaaji baara yàlla nu yàlla tas ci barkeem te wane la ko waajuram ba Seex Ahmadu Fadal البكاء على سادات أمواتي تبكي الأرات عليهم كالسماوات حق البكاء على سادات أموات تبكي الأرات عليهم كالسماوات